population bu Taïf génn si mbedd mi boole kook wekkook ay morceau yu xonk ngir fësal seen naqar li ko waral mooy tu tànk bu am juróomi at moom la courant bi maas ñu ne nag lu nu mel du lenn lu dul tayeefu Senelec si seen i kàddu ndax jàpp na lu ni kat art nanu ba sonn waa ni France daani xaneen ba jëye ji am ñi ngi jaale xale bi nga xam ne ni juróomi at ci la toll moom mooy ñetteel bi doomam ci ci yaayam muy lu métti loo xam ne ba léegi nii waa Taïf ñu ngi koy jooy faale wuñu ba courant bi rey fi ab rey fi ab xale. li indi jéey ji mooy poto bois yi gis nañu yeneen ville yi ñu ngi remplacé poto bois yi ak les poto en béton dafa jot tayif bépp poto béton bu fi nekk bant bu fi nekk ñu def ko béton parce que nag ci askan lañu bokk. boole koog seen maire weesu na foofu ndaxte jàpp nañu ni courant bi doyul poto yi nekkuñu en sécurité bëgg nañu agence ñoom profité nañu kat si bile marche ngir nag fësal ko. xam ni fii ci tayif bureau xam ne nii soo amatee looy réclamé ci Senelec fa ngay waaxu dox ndànk dootoo demet Touba da ngay ñëw foofu nga réclamer say réclamation li nga bëgg saafaraw loolu bëgg nañ ko beneen bi ci topp mooy releveur yi ci Taïf ku ne xam ne releveur yi benn releveur ci commune Taïf bi du yoon commune Taïf bi ni mu toon benn agent di ko relever teguñu ko fenn du yoon lool din bëgg nañ mu jeex ba napp releveur bi sax léeg-léeg day lu ci bëri day juum facture yu ñi nga am erreur fii ci dëkk bi ñu bari ñi ngi yegg seen i facture fii ma taxaw ñu ngi koy réclamer ba léegi nii mun ba léegi mënuñu koo mënuñu koo régler ay factures yu seer yoo xam ne nii seen boroom ñu ngi koy jàmbat te ñu ci dara. ànd nañ tamit ak meeru Taïf bii di Mbaye Tine moom nag jàpp na ni kat si wareefam art na ba son waaye kenn faalewu ko ba lii am bëgg na nag lu nu mel bu mu fa amati waaye profité ni kat xale bi moom na ko Senelec jox ndàmpaay. responsabilité Senelec la yaakaar naa ne waa Senelec ñëw nañ ak autorité ñëw jaale si mais dama jàpp ne jaale si naxarlu rek doyut dañoo war a dàmp njaboot gi nga xam ne dañoo loru sous-préfet bu Taïf bi mu jëlee kaddu moom nag dalal na leen joxaat leen yaakaar nekkaat këyit gii ñu ko jox mi mémorandum dinañ ko yóbbu fa mu war a àgg. yàgg nañu yoo xam ne jooytuñu yàgg nañu bind yu mel nii monsieur le maire également commandé na ay poto mais lii nag dafa am loo xam ne fu mu nekkee dafa am dafa am dafa ñëw te loo xam ne moom yàlla ndogal yàlla kenn mënu ci dara waaw dafa tombé loo xam ne fu mu nekk nii xale bi moom am na lii moo tax aussi ñun ñëpp moo taxoon aussi ñun ñëpp yoo xam ne pour éviter ce genre de xam ne à fois lépp loo xam ne lu am ay poteau bu daanu lépp loo xam ne yoo xam ne fu mu nekk ni bu am coupure ñu teel leen yoo xam ne ma yëgal au moins pour éviter ce genre de situation là léegi nag comme li ma leen waxee aussi ah ñun trop te tam aussi li ngeen wax ni tam aussi vraiment c'est une légitime te incha allah aussi ñun képp koo xam ne fu ñu war a eggal yéeg yoo xam ne seen doléance aussi dañ ko jox incha nekkat mën ñoon nangooti société bu mel ne Senelec di sàggan ba jëye yu ni mel di am si gox bi bëgg nañu nag seen doléance yooyu tënk si lim gën a gaaw gaaw ñu indi si saafara.